président Serigne Boub di président bu chambre de commerce bu Kaolack ak maire bu dëkk bi bàyyeekoo na ci kërëm gi nga xamné ne nekké ci Touba Mbacké ci quartier Xayra ngir amal ay ziyaar yu yaatu ci dëkk bu sell bi nga xamné mo modi Touba lilé nak mi ngi ko amal ci aljuma depp won ak fukki fan ak ñaar ci janvier atum 2024 bi mu agsee mu tombeek aljuma gi njëkkee na ci julli juma fii ci grande mosquée bu Touba ci njiital Serigne Modou Mamoun Bousso imam ak délégation bi nga xam ne ñoom la àndaloon. mu ne El Hadj Baara soxna loo Marème Fall Mor Fall yi Jeng ko jur Saliloo ko jur Balla Penn Mbaaloo ko jur Dam Ndaag mu ko jur ak Isa Jéey ak Ndumbeloo ak Balla Ndaag Balla mbërgu la seen bàyyi tudd mbërgu Seneba ak Njaay Seneba ak Njuga Seneba ñoo bokk ndey baay kon Mbàkke ñagi sa nekk moom maamam dafa waxoon ah, moo waral nag Mbàkke mu daal di dem ci première tranche bi di wàllu parrainage yi suñu borom dimbali ko mu jàll ja léegi nag mu des ñaareel bi te jikkoom may na ko réew mi bëgg-bëggam tamit bëgg euh, bëgg-bëggam akub xolam ak laabiram ak dimbali nit ki may na ko réew mi hmm. ab yaram ku mu ameel ab yar sëñ bi jox na la yar bi ku mu amee ay teggin jox na la teggin bëgg-bëggam daal mooy mbàkke mooy ñu teg loxoom ci réew mi bu ko defee lépp lu sëriñ daara ab jigéen lépp jafe-jafe ci réew mi ku ko mas am benn jafe-jafe dootul am ñu dem ba réew mi xale yi kenn dootul génn di dem bitim réew di wuti loo indil say waajur lépp da ko fi fekk ndax dëkk ci réew mi tekkee ci réew mi liggéey ci réew mi moom loolu la yéene ñëpp kon président Serigne Mbouba mi noonu Serigne Sidi Mbacké moom Serigne Abdou Lahad di xalifa njabootuk sëriñ Abdou Lahad Mbacke gi mu nekk sëriñam di mbokkam mbokk mu ko jege waaye di wëllëreem di léppam sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad daal di koy sant bu baax a baax gërëm ko ci ñëw gi waaye daal di koy ñaanal bu baax ci li nga xam ne moom la yootu muy njiitu réewum Sénégal. ndax soxna Seynabou Diakhaté soxna Faati aw Balla ko jur. aw Balla may ah. aw Balla ko jur. sëñ Kokki Njagi Isaa ko jur. soxna aw Seynabou Diakhaté. Ah. loolu moo fi mën a nekk. Faati aw Balla aw Balla mu ko jur ku ma ñuul mu ko jur. Ah, maam Jeng Warax Mbooj mu ko jur ak Faati Balla Warax Mbooj. mu jur jëmbuloo mu jur Assane jëmb mu jur aji a Jeng mu jur Serigne Mbuub sa mbokk mi ñoo bokk ndey baay ba. Serigne Serigne sa mbokk. bu Kaolack. ci bërëb bi it président sëriñ Mboup ziyaare sëriñ bi feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne dox na ci seen diggante te mu nekk lu yàgg lool ñu amal fa jotaay boo xam ne am na kàddu yu am solo yoo xam ne jot nañ ko faa yëkkati القران جوخنا لكو بودي بودي بودي بودي بخامي بودي اسكنو جوخنا لكو تيغا بوك تيغا خادم نينا نيوغي لاي سانت تي تورو سيرين شيخ احمد مباك نينا كو فونك مبوك جيلا ليكو سا واجور جوخ نينا ليكو سا واجورو جيغي نو جوخ نينا سيرين شيخ ترانغ جو مات سكل سي موم سيرين توبا نдах سيرين توبا لونكو مسا جوخ تي لخوم لونكو مسا جوخ تي لخوم القران الكريم تدو القران الكريم دوكو نانغو du ko nangu. ndokk nag ba ko xamee. nee na ndokk nag bi mu ko sa waajuru jigéen a xamee. ndax nim la nim ni mu nekk sa waajur. ndax ni mu nekk sa waajur. noonu la waaj la nekk waajuru sëñ. noonu la nekkee waajuru sëñ si Ahmadou Mbacke yi mbokk gi. nee na kon mbokk gi. yaa ngi koy dox. yaa ngi koy dox. te jàpp na ko. te jàpp na ko. te xam na ko démb. te xam na ko démb. tey soog a ñëw tey soog a ñëw. ba léegi fii ci Touba Mbacke président Serigne Mboup demoon na ziyaare ji xalifa général des Mourides muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou fii ci Daarul Minan sëriñ bi recevoir ko ginnaaw bi ñu jullee aljuma ba noppi président sëriñ Mboup ñëw feddaliwaat ak taalibeem ci sëriñ bi ziyaare ko waaye sant ko gërëm ko ci ni nga xam ne saa su ne mi ngi ko koy taxawu rawatina ñaan yi nga xam ne mi ngi ñëw ci moom. li nga xam ni mooy yéeneem ak mébétam ci réew mii di Sénégal lépp leeral na ko sëriñ bi ci sama baay sëñ Mouhamed sëñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax bi may xëcc chambre de commerce ci moom laa njëkkee woon bi may wuti mairie Kaolack ci sama sang bii laa njëkkewaat kon nag tey bu ma demee ba am yéene dëgmal jëm dara ci réew mi bala ma cee wax ak kenn ci ginnaaw bi nga xamee ne conseil constitutionnel valide na candidature am mu ne tey jii bala maa jëm fenn wala mooy fëgg benn buntu damay delloo ci sama sang ba sëñ Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha. ñëwun rek pour ne lii fi nekkoon baaxul ñun dañ leen a war a teg fale waaye dañoo ñëw ne ñun dañ cee war a bokk ndax waatoo kull si xaqan xaqahu ah loolu daal moo ñu indi yàlla def na nag première bi ñuy ñëw fii li nga xam ne nii mooy suñu jiital mooy fexe ba daara ji dox tool bi dox liggéeyukaay yi ak penc mi ah, te jàpp nañ nag ne ndax jaxasoo nañ ñoom bu baax jàpp nañ ne ñoom li ñu man ñun man nañ ko wala ñu man lu ko ëpp cheikh mohamadul muntaha mbake mom serigne basirou di xalif general des mourid santat bu baax baax president serigne boub ci taxawayam ci jëf yu reey yi nga xamne sa suné mu ngi koy def ci dëkk bu sel bi di touba serigne bi dalal xelam bu baax baax ci li nga xamne mom lay yotu dal di ko ci ñaanal yeen bu dis bi ñëpp ñu woon daaw ko ñëpp ko mu fa loolu mo nekk ci biir am na ci moom yi am na ci biir nak xamal suñu diggante loolu ñaan gi sàmm gi daal waaw sama diggante yow. góor góor la waaw. jërëjëf kenn ci laaj laaj bi délégation bu président Serigne Mboup demna ci Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadre yor kàddu yoonu Mouride moom président Serigne Mboup daal di koy wat ko kóllëre gi nga xamné doxna ci seen diganté tanki président Serigne Mboup yi nekk lool Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadre sant nako ci bu baax baax gërëm ko waaye lu bu baax baax doxalinam ak taxawayam ci réew mi rafetlu lu xelam mu rafet ci lépp loo xamante nii ñu ngi koy def ci réew mi di Sénégal. jox ko mairie ba ginnaaw bi mu ci amee ndam mu ne nag léegi nag man si président Serigne Mboup dama bëgg nag réew mi di Sénégal ma teg ko ci sama loxo bëgg-bëgg mooy fexe ba dongol daara yi. ndax li nga xam ne nii moom da koy wax sax dongo daara bi li am ca daara ja léegi école française bi am na ca daara ji kon ñoom ëppaleewuñ nu dara fexe ba tamit Sénégal ñëpp mën a euh, am jàmm ci réew mi ñëpp mën a sentir seen seen bopp ci réew mi bëgg-bëggam mooy tamit nag fexe ba kër Serigne Touba gii nga xam ni mooy sa kër maam amul lenn loo xam ne nii dinañ ko wuti fenn ndax loolu amut te kenn du ko ca man kon Mbàkke kooku la ñu àndaloon muy sa wëllëre di sa mbokk ngeen bokkit nag mbaakool muy nit ku baax di li tubaab di wax naan euh, noble sincère et tolérant envers la population sociabilité et son ami bu yàggul la jël 22 millions région de Kaolack woo sëriñ daare yëpp nag jox leen ko ngir jàppale leen kon kooku xam nga ni réew mi ñor na ko askan wi ñor nañ ko kooku nag mooy président Serigne Mboup moom la ñuy jox kàddu gi bu ko defee mu daal di waxtaan ak yow mbalay sax kon daanaka du jar may wax wax wax ju bari xam nga lépp li ci dess rek moy li ñu jëm di sakku ñaan rek na ñaanal ñu Bachirou neena mi ngi mi ngi lay delo nuyo bu baax di ko tek ci loxop serigne modou mi nga andal ak doomi bopam ji di serigne mam Balla di doomi serigne mustapha Bachirou di ko passefu lolu sax mom du kiman ci waa kër sëñ at mu jot buy siyaare ci barab bi moom la ko sëriñ Basiiru Poroxaan di booleel mu taxaw taxawaay bu mat sëkk di nuyu mbooloo mi nga àndal mépp bàyyiwul kenn daanaka sëriñ sëriñ Basiiru nee na junj nga ko ndax sa digganteeg moom amul luñ ciy leeralaat rawatina nag ci lii nga dugg ndax dara musi ko cee ump loo ci mas a def rek ak foo ci toll ci xalaat rek wax nga ko ko yëgal nga ko ko loolu nag kon diggante bu yàgg la boo xam ne am na ci sa digganteeg moom ndax booba sëncagul kër gi nee na booba mi ngi jàng xam-xam nekk ci sëñ kër sëñ du Khadir di jóge kër sëñ Chouaïb kon te diggante bi mus sa dagg te li ngeen séq gannaaw bokk googu itam moo waral ànd na ngeen ay yooni yoon ay tukki lu mat ay fan yu bari te lépp yow mi yaa koy fay kon loolu diggante bu sori la. yéemu ca. waaye màggal Touba gi boisson bi nga xam ne moom la gan ñi jëfandikoo. at mu jot. yow mii yaa koy def addiya sëriñ Touba. kon loolu lenn la rek ci ay jëf yu ba Bassirou xam. ndax sak taalibe moom kenn nattable wu ko. ndax sa wayjur. ci yoon li mu doonoon ci yoon wi digganteem ak sëriñ Mbacke Madina ak njabootu sëriñ Touba gépp lu mu ci mas a xam rek day jëf leen teeg ñoom te di ko sellal ba mu agsi ci yow mii nga juddu ci nga def ci taxawaay bu mat sëkk ndax commerce la fi bàyyi woon waaye nga yóbbu ko ci fi nga ko yóbbu loolu yitteeg taxawaay la. ak xalaat. waxtu wu ne nee na da lay tooñ sax. naan sëriñ bu moom ab sawan la daanaka. ci xalaat. yàlla da ko may. yàlla da ko da laa may lool. buy waxtaan ak yow. da koy buy waxtaan ak yow da koy fàttali Ablaye Wade. noo bokk nu ñuy xalaate mooy lu romb rek. bu ngeen newoon ci biir oto lu mu romb rek dana ca xalaat dara moom mii sëriñ buum noonu la bindoo kon nag lii nag lii ngeen dugg ndax politique moom ku ne sañ na koo def ndax nit koy xool xalaatam ba mu gis ne lu mu war a def la rek mu def ko loolu nak mom sañ-sañ bu nit am ci bopam la waye sag jambar nak moom serigne bassirou neena na nako na ak sa xalat ak sa yitte ak sa di ak sa dimbali daara yi kon nag li ci dess moom seen liggéeyu bop la yeen ndax yaakaar fi fii moom da nga dëkk li nga fi doon nit ñepp xam nañ ko jërut kenn di ko leeralal nag ndax lu ne fànn kenn du ko wax yàlla def na itam nee na yàlla def na yaa njëkk a ñëw bi ñu waxee candidat yi fekkoon na ci gannaaw am na lu mu leeraloon ci ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaqa mooy tawféex nag mu mën koo leeralaat ba ñëpp dégg ko. waxee ne sëriñ bi na mu waxee ne na sëriñ sëriñ Mountakha na ko ñëpp may jàmm. ci mbirum mbirum politique bi. politique bi. nit ñi dañoo jàpp ne dana bu fa kenn duggati. nit ñi dañoo jàpp ne dana bu kenn duggati ci dëkk bi. te sëriñ Bassirou nee na waxewu ko noonu. li li li muy bañ. li muy bañ. ku ko jéem a dugal ci politique ko jéem a dugal ci politique bi. لول كابل واي طالب بو شي عرشي ولا كل ربي شي عرشي سنج بي نانا في كير سيرن توبا لا كير سيرن توبا دي سوكو تري كين كود توب جولي سخ دي سوكو كو تري راواتينا اب جوليت راواتينا طالب سيرن توبا لي تي ديس نك موم لام تي واخون موم لام تي واخون موم شيخ محمد المنتقى بركي ديم رك واخان نكو كو موم سيرن بشير kaddu yi nga yëkkati ci sama tur. mu ne kaddu yi nga yëkkati ci sama tur. dimbali na dimbali na ma. ndax may na ndax may na ma jàmm. ndax liggéey sëriñ Tuubaa bi ma ne. mënuma cee mënuma cee boole dara. kon bu ma sañoon. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. la nga war a sàkku ci nit ñi. nga war a sàkku ci nit ñi. seet na mu ci yow. nga seet na mu gënee ci yow. bu ko defee bu dalee xelum nit ñi nag. nit ñi danañ leen ci tinki moom. da leen cee tinki da leen cee ndax amoon na sañ-sañu. ndax amoon na sañ-sañu. seet ku ko jubu. seet ku ko jubu. mu ànd ak moom mu ndax kilifaam yi daan nañ ko def. ndax kilifaam ay waajuram lañ. ay lañ. ay sëriñam. ay di ay sëriñam. di léppam di léppam. kon dara néew ci. kon nekku ci. waaye nag moom ci boppam nag. sama kilifa yi ma wax sama kilifa yi ma njëkkoon. dañ dañ da joxe ndigal ndax dañ ci amono sañ-sañ am ci ndigal mom nak lim tànnoon ku ne mu xol fa dalum xelam mu dem fa momitam nak neena nee lay roy ci wajurum wu tedd wa muy serigne Saaliwu mbak kaddu yoy rek kep la won ah, kon serigne bub serigne bi neena ñing lay sant bu baax ndax la mu leeral ko ba ñëpp xam ni mu demee ndax booba wax yi daa bari te te ku ne laaj na sëñ bi nee na bu fi kenn agsi waaye nag jubluwaay ba du woon loolu li ci des nag bëgg noppal nit ñi rek a tax ndax bu xasee wax loolu ba ñëpp dégg ko kenn du dé dootu dégg ñu ne diw dem na ci sëñ bi di i ndigal muy indi coow te Serigne Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon ne. seytaane seytaane. Eh, Serigne Touba dafa ñaanoon suñu borom. dafa ñaanoon suñu borom. mbooloo mépp àndandoo. mbooloo mépp àndandoo. bañ a tasaaroo bañ a yaa rabbi yaa rabbi. muridina. maa. fii xasnikal xasimi wasam nañ nañ maa mu ne gis na ne nag mu ne gis na ne nag seytaane dugg na ci biir gis na ne nag seytaane dugg na ci biir fi mu ko jaare nag fi mu ko jaare nag mooy si jiite parti politique li ñuy tudde parti politique li ñuy tudde parti politique ndax day jaxasee xol ndax day jaxasee xol ndax da nga gis ñaar ñoo xam ne ñoo bokkub sëriñ wala ñu bokk ndey ak baay waaye politique juyeele leen. te loolu jàpp na ne. Sénégal gépp ci war a liggéey. kenn ku ci ne. lay sa sa digganteeg sëñ bi sa digganteeg sëñ bi la. waaye bu dee mbirum adduna yitam li ci xool bam lu ci nit xool mu dalum xelam. jàpp naa ne jërul xuloo. jërul noonoo. jërul ŋaayoo. ndax ñoom ñii ko seq kat. ñoo tax nit ñi di juyoo ndax ñoo tax nit ñi di juyoo ci seen biir. ñoom ñoom fu ñu gisante. ñoom fu jàmm la ñu seq kon nag jàpp na ne li ñu topp ci seen ginnaaw. war ñoom war nañoo am matu. xam ne xam ne. ku ci ne am nga xalaat. ku ci ne am nga am nga lu gën a dal sam xel waaye nag jërul yàq seen i diggante jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum. ginnaaw ziyaar yooyu le président Serigne Mboup amal na jotaay bu yaatu bo xam ni seq na ko ak sympathisant ak militant yi nga xam ñoo nekké ci dëkk bi nga xam mom modi Touba Mbaké muy jotay waxtaan wu yaatu woo xam ne nañ xalaat fixer ay objectifs yo xam bëgg nañ ko atteindre mu yobbu président Serigne Mboup mu nekk 5e président bu Sénégal muy jotay bo xam ñu ko amalé ci kër Serigne Baye Diop. damaa bàyyi woon politique. moom nag wax na ni kat dafa bàyyi woon politique. kere bi ñuy añ fii ma dégg galas mii ma may añ ma Baye Diop ak soxna Khady Diop mais ñu ni Serigne da day politique. na keroog dañuy añ fii mu dégg moom Adja Khady Diop muy dégg ci galas ñu ne ah Serigne da day politique. ma ni man de sama carte bi moom. nee na sëriñ moom kat mu daan di ah man de bàyyi woon naa politique waaye sama carte wi sëriñ laa koy jox. su ma campagne lul carte ma am moom. suma ma campagne lul sama carte wi sëriñ laa koy jox. mu jox ko carte am. waaw waaye Diop nee na koo mën a fexe mu jox ko carte am. kon nag kon nag euh, kon nag kon ndigal. kon ndigal sonn ci sànni. dañoo daan sànni aw carte. ko daan sànni rek ci maari ko daan sànni rek ci maari foro waaye bu alxuraan dikkee ni nan ko sànni na ko sànni te Baye Diop alxuraan rek ko ñor te Baye alxuraan rek ko nee na Adja mi rek ko ñor nee na kon seen carte yi tey duutu ñu ko sànni dañ koy teg si alxuraan ndax sëriñ daal na xam ne na yow na nga xam ne na sa xel dal na képp ku fi nekk yi dees nga ko lijjanti te nag ñu bari am nan carte ndax Adja lijjanti na ko avant ndax ngeen bañ ko jàppe ni euh, politique ab politicien moo fi ñëw. déedéet ku bëgg a réew mi. nee na ku bëgg a réew mi. ak ku bëgg a eh, eh, waa Touba. ak ku bëgg a dimbali waa Touba. moo ko yëkkati. nee na loolu moo yëkkati Serigne Mbacké Madina mi na am na lu mu jàpp. waaye ku ne xam na ne am na lu mu jàpp. am na lu ko gënal. am na it lu ko gënal. politique politique. loolu rek laa leen doon wax ngeen teewlu. kon ñu maase déglu te teewlu. waruñoo seetaan. waruñoo seetaan. monument yu mel nii. monument yu mel nii. liggéey dara. liggéey dara. ba pare ba noppi. xale yi xale yi duñ ko mën a contrôler. mais xale yi xale yi duñ ko mën a contrôler. loolu nag du continuer. duñ ko mën a continuer. xam naa ni sax. mais xam na ni sax. moom sax. moom sax waajal na loolu lépp. mais waajal na loolu lépp. waaye ñeneen ak ñeneen. waaye ñeneen ak ñeneen. kon nag ma leen di ñaan. mais mi ngi leen di ñaan. waxuma leen yéen ñi nekk fii. ne waxu leen yéen ñi nekk fii. waaye kenn ku ne. ne kenn ku ne. bu la neexoon. bu la neexoon. balaa suba. ne balaa suba. mbooloo mii. mbooloo mii. nekk ñaari junniy nit. ne nekk ñaari junniy nit. fii mën nga ne téeméeri nit a fi nekk. ne fii mën nga ne téeméeri nit. moo fi nekk waaye kenn ku ne. xanaa xam nga ñaar xanaa xam nga ñaar téeméeri nit. boo noppee. boo noppee li ma la wax. li ma la wax nga wax ko ko. nga wax ko ko ne ko sëriñ buub. ne ko sëriñ buub. daa bëgg. daa bëgg ngeen jàppale ko. ngeen jàppale ko. te Baye Diop moo ñu woo. moo ñu boole ñoo ngi boole ñoo moom buñ paree buñ noppee ñu jàppale leen ñu jàppale leen taxawu dëkk bi taxawu dëkk bi dindi Ah, li nga xam ne nii président dañ naan dimbalee nga ñu déedéet ñun dañuy def li ñu war. dañuy def li ñu war. def li ñu war. def li ñu war. ci yéen ci yéen. ndax ku nekk tugal. ne ku nekk France. Eh, am am am eh, kii am eh, gouvernement gouvernement am. du ko defal du ko defal dara. du ko defal dara. muy tëgg di fecci. muy tëgg di fecc. ak di ko tàccu. ak a tàccu di ko gërëm. ak a gërëm naan ko jërëjëf. naan ko jërëjëf alalu nit ñi. ndax alalu nit ñi defal la ko rek. noonu lañ lay defal la ko rek. ñun tànk. ñun tànk. doxum ci noonu. doxum ci noonu.